ndax mu ràkkee composé ñett yi yëpp noo ngi rafetlu bu baax teewaay bi nga xam ne teew na wax naa ko gouverneur de la de Diourbel wax naa ko kon dañuy maas rek Mbàkke déglu monsieur le premier ministre sa doom sa taalibe sa soppe yàgg wu si woote Serigne Touba bi mu indi la nuyoo ak ziyaaram ak ziyaaru mboolem gouvernement bi yëpp doomam ne ci suñu kilifa bu baax gii muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général kullu murid waaye xalif général kullu kuy jullit ne di la dellu di la ziyaarawaat bu baax a baax Mbacké ne ci tuur sa turandoo xaritam muy monsieur président Bassirou Diomaye Diakhar say ne bi muy ñëw ba bi muy gaare fii ne moom la doon waxtaanal ci téléphone bi ne donte bi mu jógee ci yow ak léegi ñaari fan la waaye insiste na bu baax a baax ni ko ne mu jottali lab nu yomb bu baax ma ak mbégteem ci niñ ko dalalee fii ba ci niñ ko fi terale niñ ko fi yaatale waaye ni dalalee xelam yi ne di jàllale suñu ziar ci tur gouvernement bi yëpp nag ne naam li mu àndal ci ay ministre lu mat juróom la waaye dañoo représenté mboolem gouvernement bi nga xam ni moom mi moo ko jiite nee suñu teewaay fii nag. mën nañoo wax ni ci qualité yu bare bare bari. waaye dafay feddali. solo si nga xam ni. solo si nga xam ni. lii ñuy célébrer tey. lii ñuy célébrer tey. am na ko ci ñun. ndax màggal bi. ndax màggal bi. def nañu ñetti conseil des ministres yo xamni né président daf ko tudd tuddaat ko. dal di joxe ay ndigal. ci bépp ministre bo xamni war na ci am cër. muy ministre de l'intérieur ministre de l' ak ministre de la santé. ak mboolem seen ministre yépp nee na loolu day wane importance bi nga xam ni jox nañu ko màggal bi jox nañu ko bés bi nee di dellu di sant yàlla bu baax ndax bi nu fi géjee ak léegi def na weer wala lu ko ëpp tuuti waaye visite privée la woon bi ak doom gi moo ñëw ziar si tey ñëw nemmeeku si ñëw sàkku si ñaan waaye ñëw duy ci ay conseil ne tey nag ñu ñëw fi ci cër gi nga xam ne yàlla suñu borom jox nañu ko muy premier ministre bu Sénégal ne loolu bu ko waxee nag li ñuy njëkk a def mooy sant yàlla bu baax ndax si daaw màggal gi ñoo ko seetaan ci télé tëdd ci lalu hôpital ne loolu la ñu amoon ci màggal gi daaw waaye amoon ci lu ëpp solo loolu yëpp mooy ci jamono ji daaw la ministre Aïda ak Habib si ñëw fii ziar si la Mbacke bi ñu fi jógee sëriñ bi yónni leen jox leen benn booy tàndarma ni leen dem leen seetal ma sama doom sama taalibe ni ko ñaan naa ko digal naa ko mu jël ci tàndarma ji te dakkal grève de la faim bi mi ngi woon tombe jamono jii ñu toll daaw ndax gën saa gudd. ñeent wala juróomi fan moo tax bu jëmoon màggal gi daaw. kon loolu di lu rëy rëy lool ci ñun luñ dul mës a fàtte ndax jamono ju ne ak li mu méngool ak li mu tollool da ngay a xool càmbar taxawaayu kenn ku ci nekk ci nit ndax foofu mu tëddoon ne xalaatoon na ni ñëpp fàttali nañ ndekete mbàkke suñu kilifa gu baax gii benn guddi ne mu def ci li nga def li nga ci war a def lépp nag ci zahir ak ci baatin lu ci nit ñi xam ak luñ ci xamul luñ ci yëg ak luñ ci yëgul ñaan ñu bàyyi leen ñu ñëw fekk ko fa ñëw jottali ko ba taaxal bi bàyyi ko ci yow nee na loolu di lu rëy ci nun loolu ba kon lan ciy jàngate mooy léppay jeex ci àdduna lu door rek dana jeex te lu waay muñ ngir yàlla ak nu mu mën a jeexee ci bëtu nit ñi nee ndam rek lay doon mën na jeexe noo xam ne nit ñi dañuy jàpp ni échec la nee fekk ca yàlla nee mën na doon safaan itam ndax boroom bés bii. keroog ba muy jógee fii di dem. keroog jàpp. na ni ñu ko wóorul ñëpp am nañu njàqare la. waaye moom amoon na yaqin waaye moom day amoon na yaqin. ni sacrifice boobu muy def. ni sacrifice naataange rek ci tegu. nee na ndax tey Tuubaa du naataange naataange amal tey. kon. jégalewuñu suñu bopp foofu. foofu sax de. waaye nag jàpp nañu ni. ku jóg di dox ku di dox ni li ngay dox lu baax la luy defar la ak loo ci mën a ci yoon te muñee ko rek ndam rek la am solo nag mooy di ñaan yàlla suñu borom nee te di leen ñaan bu baax ngeen ñaanal leen